لك دار سلام ربي وتوبا ليكن ربي فيما سحدوني أسكى صلاة منه جل بسلام تطيب لي توبا يا دار سلام لك دار سلام ربي وتوبا ليكن ربي فيما سحدوني أسكى صلاة منه جل بسلام tuti bu lii tuubaaya ma daari diglul ma wax la sëriñ mu du roqaya lam góor ña naa ci teg billaahi diglul ma wax la leen di siyaare bu baax bokki taalibe yi nga xam ne noonu nii seetaan at mu jot saa yi jot ci waxtu wi ku nu gis rek xam ne bis bu tedd bu sell boobee moo waral sunu jataay bii muy bis bi nga xam ne dañ ko baaxoo bokk ko jullit yëpp bokk ak njabootu Serigne Touba yi bis boobee nag moo taxal di soññeewaat murit yëpp ngir nu gën a yeesalaat sunu pas-pas ci bis bu tedd boobu nga xam ne moo tax a jóg. bis bi nag noo ngi ci woo ñëpp bàyyiwunu kenn di ci woo xaadir laayeen di ci woo tijaan ñëpp ci wuyoo woo mboolem ko yu ashadu an ngi lay woo ci bis bu tedd bi nga xam ne moom la ñuy defal sunu yaakaar yi teeg ëllëg muy Serigne Modou Rokhaya te amee ko ci ndigalal nag jàmbaar ju tedd ji nga xam ne moom la fi bàyyi muy doomam ji sell ju baax ji te yàlla na fi yàgg te wér muy Serigne Cheikh Anta Mbacke yàlla na saa wéram yàlla na ko fi yàlla yàggal yàggal laxasaayam ak mébétam li mu bëgg a liggéeyal Serigne Touba Xaadim Rasool yàlla na ko defee ni ko njort ànd ko mboolem njaboot yëpp waaye di ñaanal Serigne Abou Moubarak yàlla na ko fi yàlla bàyyi moom mi xam ne kilifaam la di léppam na nga koy ñaanal bàllaay si yàlla na ko fi yàlla bàyyi mu yàgg a taxawee liggéeyam Cheikh Mouhamadou na di ko ñaanal njabootuk sëriñ Gaawaan gépp njabootuk Cheikh Mouhamadou Mamoun gépp bis bi nag képp koo xam ne gis nga ñuy seetaan xamal ne bisub Serigne Modou Rokhaya Ba taxawati na bis boobee la murid yi soññee yàlla dogal nag sunu mbokkum taalibi di dongab tarbiye ci kër Serigne Modou Rokhaya di ci woo bokki dongam bokki taalibeem bokki jullit di ci woo Daaru Salaam Gaawaan Touba ak mboolem Italie ak fu waay nekk rek tey dégg sunu kàddu sunu mbokkum taalibe seen mbokkum taalibe moo xam ne nii dongab tarbiye Serigne Modou Rokhaya Serigne Mbacke Dieye moom moo ci soññee taalibe yëpp deen woo ci bis bu mu baaxoo woote ci turam tabakku kook koog taalibe yëpp. asalaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen nuyu bu baax di leen di leen ñaanal <clears throat> yàlla may leen wér ak ak wérle ndax bis bii day li dem tubax rek bis bi bu ñëwee rek maanaam mbokk yépp maanaam kenn ku ci nekk rek sëriñ yëgal na la bis bi. buy agsi maanaam bis buy jub rek sëñ bi sëriñ woon na ñëpp yagal leen bis bi nga xam ne tey kenn koy defal day jar na ko ndax man ne dangay nekk foo xam ne nekku fa wala ñi nga xam ne sax maanaam ay taalibeem nekku fa ñuy wax ak mbaaxam wallaay xam nañ ne ak xam nañ ne loolu rek moo nekk ci moom te bis bii dey maanaam wane na ko ba bis bu ñëwee rek wane na ko ndax xol yëpp dana dana sedd ci bis bi te sëriñ mi bàyyiwul kenn bàyyiwul xarit yi bàyyiwul bokk yi bàyyiwul nday yi bàyyiwul bàyyi bàyyiwul rakk yi bàyyiwul mag yi bokk yi yëpp la ko wax te bis bi buy jub day kenn ku nekk xam na ne day sëriñ mi ñëpp amul kenn koo xam ne bàyyi na la kon ñi nga leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla may leen fan wu gudd wa ànd ak wér ñu koy fekke nag rek di ko fekk di ko fekke di ko fekke ba abadan ci barke borom Tuubaa xool yëpp sedd nañ sëriñ sant nañ la bu baax a baax a baax baax sa bokk yëpp sant nañ la jullit yi bokk taalib yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaara te di leen jox seen wàccuwaay te di leen jaajëfal ci alxabu rafet bi jataay bu taaru bii bàyyi xel jataay bi dana xam ne ñu ngi jëm ci bis bu boroom yitteel bis boo xam ne ñu ngi koy defal e, nitug yàlla wu am ci boroomam ay daraja yu jéggi dayo ku daan def ku defar woon ba àgg ca dayo ba te daan defare lii tegtale loolu mooy kii taxawal bis bi bokk ci ñum defaroon muy koo xam ne ko am Pastef la loolu moo tax ñu ngi sant yàlla ci teewaay bi di leen jaajëfal ci Pastef bi tey ñaan suñu borom mu àggaliñ ca bis ba niñ ko yéenee ñu mottalee ko noonu tàmbalee ko ci bismillahi rahmaani rahim mottalee ko ci alhamdulillahi rabbil alamin te suñ borom defal ñu ci taw feex ju jéggi dayoo kenn ku nekk bu bis bi jàllee nga yëg ne dolliku nga bu baax a baax a baax ndax lu ñuy defal kilifa moom lu ñuy defal suñ bopp la ndax ku koo xam ne baax na ba baax jéggi dayoo am na lam lam doon wut lépp am na ko nam ko bëggee kon nag ku jóg di ko wooteel bis rek na nga jàpp ne sa bopp ngay defal ku ca teewit na jàpp ne boppam la teewal kon li ci waaye def rek boppam la koy defal ñu ngi ciy soññ suñ bopp di ci soññ mbokki taalibe yëpp rawatina daayira yi nga xam ne eh, ñoo ko daan teewee daan ko taxawee ñun nag suñu wàll ci wàll woowu mooy ci daare alquran yi nga xam ne ñoo ko daan teewe daan ko woote te suñ jëwrin maam Balla Gueye bi eh, jëwrin moo ko daan woote ñu jëm ko fee rek di ko jottalil kàddu yi waaw kon ñu ngi ciy woo mbooleem daara alxuraan yi nga xam ne ñoo ko daan teewe rek képp ku dégg annonce bi rek nga xam ne mooy ab wo ñu ciy sàkku seen teewaay ak seen postef lu ci waay man ci alxuraan alxuraanul karim rek ndax lépp lu ñuy defal lu ku baax moom alxuraan moo ci war a jiitu kon ku fàttewuñ kenn bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñ kenn buñ demee sëñ Maam Balla ak sëriñ Baara Diané sëñ Axma moom sëñ Baara jaane waaw ñoom ñoom lañ jiital ci euh, woote bi bu ko defee nag mboolem mboolem kuy daalee alxuraan ci Daaru Salaam rek ñu ngi lay wooti sàkku sab teewaay di sàkku sab teewaay waaw kon xam naa ngi wàcc foofu suñ kàddu yéen mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ñu ngi leen di nuyu gën ngaa tedd di nuyoo di jiital ci nuyoo bi sunu wasila sëriñ Seex moom sëñ mu roqee di ko ñaanal mu yàgg fi tawér lool ak mboolem ay kilifaam di woote ci bis bu tedd boo xamante ni ci amee ndigal ginnaaw bu ñu amee ndigal ci moom at mu jot ñu baaxoo koo amal muy wàccaayu àddiyee Daaru Salaam di ci màggal di ci ñaanal sëñ mu roqee di ko gàttandoo àddiyee yi ren nag fu nekk fukki année ak juróom yoo xam ne ñu ngi koy baaxoo di def bis bi moom mel na ni ñëpp xam nañ ko léegi waaye fàttali daa doon lu mënta ñàkk bis bi nag yàlla dewal nañu ànd ko mbokk taalibe bi yëpp soppe yeeg wóllëre yi ak ñëpp ak sëriñ si nga xam ne ñu ngi ci Daaru Salaam ñëpp bàyyi ko xel ñu yàgg koo def di ci jaamu yàlla di ci dundal sëriñ bi di ci wane sunu bëgg ci moom ni ci woo mbokk taalibe yëpp comme ni fi jaar ñi ngi ko waxee rek bàyyiwun kenn képp kun tudd ak kun tudd ku ne rek ñu ngi la ci woo boo déggee lii wala nga seetaan ko rek mel na ni sa sunu woote la ndax boo gisee ñuy sonn ci communication bi ak carte invitation yi di joxe leetar yëpp bëgg ku ko gis xam ni bis bi ñëw na nga ñëw ànd kook ñun li ñuy wax faral di wax rek képp ku ko yëg carte yi lay jox du bëgg luñ cee def waaye bëgg rek nga yëg ko xam ni am nañ ak yëg ci yow euh, soxla nañ nga teew ca bis ba moo tax ñuy la ko jox waaye dañuy faral di wax ne ku am ñëwal ku amul ñëwal ndax liñ ciy def yàlla suturaal nañu ci ba yàlla jàppandal na yëpp ñaan yàlla ñu àgg ca rek def ko niñ koy baaxoo di defee rek loolu lañu ciy bëgg xanaa di sant rek mbokk taalibe yéen ko baaxoo di àndal nga xam ne ban ko sosee ba tey tàyyiwun benn yoon muy samay waajur sama sëriñ jiitu ca sëñ Cheikh Anta ak sama waajur wu góor wee ca kër ga nga xam ni këram laa koy defee ba tey donte fii ñuy defee ci appel bi mooy sama këru bopp fii ci sanc yi euh, waaye appel bi lañu fi def waaye euh, jëmmi cant ga fii ca gaawaan lañ koy defee ci kër gu mag ga fan ko daan defee ci sama kër waajur sama mag a ngi nii teew sumu xalifa sëñ Mudu Maamun Jéey ak sama patron ci wàllu liggéey bi nga xam ne lu ma xam moom ma ko xamal muy sëñ Ndour moo gën koo xam ci Baye nduur nga xam ni moo yor sama mag say jéey samay soxna yi ñu ngi nii teew ak mbokk daayira sëñ Mbàkke màddina moom sëñ Modu Roqaya ñoom itam ñu ngi nii teew sama xarit sama wóllëre sunu waajur moom it Baye Basiru Gueye kasaali ko noonu yàgg na fi moo njëkk a jël kàddu ak sëñ Mahmadan Seck ak sëñ Ndemtu Fay ak sëñ Daawda mi nga xam ne ku leen gis ku ne xàmmee nga leen ci bis bi ràññee nga leen ci ñu ànd ca ànd yàlla rek tax nag ndax lu ñuy am rek buroon moo tax ñuy ànd ak man ci bis bi kon bàyyi nañ ko bu yàgg waaye ñoo jël seen alal di ci def ak seen temps ak seen xam-xam lépp lu koy jagal tàyyiwuñ ci benn yoon saa yu ñëwee wala muy waaj a ñëw duñ xaar sax ma soññu leen ñoo ma ciy soññ kon ñoom li ñuy def yàlla rek moo tax ak jaamu yàlla sëñ maam góor mi doon ubbi xasida itam ñu ngi koy sant bu baax sant mbokk taalibe yi yëpp mënuñoo lim ñëpp ba ci sëñ Moustapha Guèye xasaayit ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant di ñaan yàlla ñu àgg ci jàmm ak salaam la 4 janvier la comme ni ko sëñ daaw da waxee rek sëñ Fallou Galasi la ak sëñ maam Balla gay ñoo seq waxtaan wi bu bis ba incha allah mu demee ba war a toll ca yeewi mbooloo mi sëriñ bi dana yabal ci rakkam yi ak délégation bu mag. boo xam ne danañ mën a teew ànd ak ñun liggéey bi ba mu àgg fan ko daan kiyee ñi ñaanal sëriñ bi ak wér ak fan wu gudd ak mbooleem ay kilifaam yëpp rek ñu yàgg koo teewe te lépp lu luñ ci def suñ borom nangul ñu ko ci woo mbokku taalibe yëpp bàyyiwun kenn jànkatu alxuraan yi ak daayira yi association yi ku lim da ngay juum ñuy woo ñëpp bàyyiwun kenn di sant peres bi suñu yaay Fallou Gallassi la moom lii moo ñu ko njëkk di def muy ak cant suñ koy def ci moom lañ koy royee aussi itam bi mu fi yebal moom itam ñu koy sant bu baax a baax at mu jot noonu la ci àndeek ñun wax dëgg laaju ñu dara lépp luñ ko jox tam da koy delloowaat ci bis bi rek ndax saa yu ñëwee day yëkkati àddiyaam dima ko jox sëñ alaaji faalit ñu ngi koy sant bu baax moom itam ren mu dolliku ci liggéey bi mel ni ak yokkute la rek moom it di mbokk taalibe bu baax a baax ñu ngi leen di ñaanal seen presse bi li ñuy yor ni site internet yi yàlla def ko ay tele ba fu ñu bëgg a àgg rek suñu borom egg leen sant ñëpp di gërëm jër jërë ngeen jëf